wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa man tabia atharahum ila yawmi ddin wa baadu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen ñi ni seetaan ci télévision Dakar live ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax mbokk yi tey jii ñu dellusiwaat ci seen émission jataayu lislaam ngeen koy ànd ak oustaz Moustapha ñu indi leen tey jii thème bu ama am solo te mooy kiy wax ne dafa mage lool ba yaramam àttanul woor muy laaj lan mooy àtteb lislaam ci moom kooku suñ borom subhanahu wa dafa wax ne na joxe na na na leele na leele al fidya dafay joxe fidya lan mooy fidya wa hiya itaamu miskin an kulli yawmin min al ayaami alladi aftaraha yajibu ala man laa yastatiu sawmu kon ki nga xam ne dafa munta woor dafay joxe fidya te mooy dafay leele kon kooku li koy wax mooy aaya bi suñ borom subhanahu wa taala daganale koor warale ci ñu ñu woor daf cee lim ñi nga xam ne nag koor gi mënuñ ko lan mooy seen mbir suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ne baada audu billah min ashaytan rajim ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun ne ayaman maadudat faman kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar kon euh, leeral nañu koor leeral ñu it waxtu yi waaye ci kanam suñu borom subhaanahu wa wax ne wa ala alladina yutiquunahu fityatu taam masakin kon kooku dafay joxe dafay leele bi maanaam su dee fii ci senegal su dee ci senegal dafay joxe bis bu set ci li borom xam-xam yi xayma ñaar téeméer te mooy lu mën a Euh, lu mën a dogal aji woor te loola gis nañ ne fii ci senegal ku woor ba ngoon euh, su amee ñaar dina mën a dog normalement kon bis bu set dafay joxe 1000 francs wuute loolu nag ak euh, yeneen dund yi ndax su fekkee fu mel ni Europe fu mel ne yeneen réew yi nga xam ne xëy na wuute nañ ay prix su boobaa dafay natt ci réew mooma lan moo mën a dogal ku woor ba ngoon na muy toll ci xaalis mu koy yëkkati di ko joxe su dee ci xaalis la ko mën a joxe su dee koo xam ne nag amul xaalis waaye am na ab dund su boobaa muy defar ndogu di ko joxe wala mu koy natt ci la muy joxe moo xam pepp la moo xam ceeb la moo xam moo xam ca la nga xam ne moom la waa fa mu nekk di dore kon daal ala kulli xaal kooku moom suñ borom subhaanahu wa wàcceel na ko woor gi waaye nag tegaat na ca lu ko wuutal te mooy dafay joxe dafay dafay dafay leele te mooy dafay leele kon mbokk yi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel ci seen Dakar seen sit Dakar Live di ñu bàyyi xel ci télévision Dakar Live euh, ñu ngi xaar seeni question waaye it ñu ngi ànd ak yéen ci bépp laaj boo xam ne dafa yitteel dina rawatina ci koor gi nga xam ne moom la ñuy waajal incha allahu taala ngeen koy ànd ak seen bopp seen xarit oustaz Moustapha ñu leen di gërëm bu baax ci ànd gi ngeen di ànd ak ñun waaye it di gërëm sunu caméraman yi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi ba gis bi ak dégg bi yépp mën mën a mën a neex ñuy sant bu baax di ñaan suñu borom subhanahu wa taala gën ñoo defal ak yokkute ci liggéey bi insha allahu taala di leen tàggoo fii ba beneen jamono wasalaamu aleykum wa rahmatullah audu billahi min alshaytani arrajim bismillahi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم